Allahu akbar bismillahi rahmani alhamdulillah alhamdulillah jërëjëf baasuloo ci yoon bi ah, yoon rek ah, waaw kay waalo moom nag dafa jegewul maa jaaraat ndar nag boole ci ah kon sonn nga waaw waaw dëgg la kay. sonn sa ngi lay bu baax a baax a baax. di la laaj rek ko gane si bu soobee yàlla daa mag nga ñëw seet si ko. incha allah d' accord d' accord di kon mbaa yaa ngi leen di dégg. noonu lañuy dundee dama fa هاو انا دكتور سعد دكتور كيف بياجي دكتور بياجي دكتور تام لما ووتي سي فيكسي بي باسون مي سا سون دام بيد خمنا داي فيك باي ووتي دا نيو نيك بوز ولا تخمن لما نجر دكتور سعد سما جينيكولوج لا دونك دام كو وراو ساك انستان ديكو جوت مدام دكتور دا فا فواياجي دا فا فواياجي لو بغلاني ني ني واخ اك ما جوخنا خمول مان جو سوي اون باشانت فيدل ا لوي dama war a woo Tafa Sarr tout le temps di ko jot comme yow yaa nekk fi ne da nga war di surveiller fixe bu ñu wootee ñu mun koo jot. madame su ñëwee dinaa ko wax demal war ngaa xoolaat ni ngay waxee. merci beaucoup bu ñëwee xaw naa na. ci waaw mais nag na moo dara de. pour gars waaye maa ne gis nga ko nekk téléphone bi. Hmm. Hmm. sama rakk ji nag wala jongo maa nga dundal wax nañ la ko. Ah, mais nga ne. maa de. mais xanaa da nga voyagé woon. voyage maa ngi Pikine nga naan ma voyage. mais man dama la tegul beut dama la gisul fenn fenn ci town bi man jusque dum suma ma damay nek ci business yi business xam nga dugu genn kërëp kërëp liggéey ngon gi nak mom ma dem euh, salle entraînement xam nga lool mo tax ko do ko bay aar doon def bay mais nabu man numa comprendre léegi boy ko ci waxal man la damay def business damay def business sañ nabu aar bi ñuy def muy danse métier la mais nabu yéen ay artiste ngeen ay danseuse ngeen yow danseuse nga bu mag kon donc sa aar danga ko respecté xam ne yow danse bi ngay danse mën na la apporter lu nekk ci àdduna len daal xam naa ko moom dinaa woote réunion ak ay règlement intérieur yoo xamante ni pour groupe bi la man lenn dong la lay wax yow da nga am problème communication da nga wara sétat bu baax ni ngay waxe ak nit ñi yow xam nga ni clinique bi dañu am ay problème tafasa nek ci ay jafe-jafe mais yow ya fi nek donc yow ya wara mëna motiver patient yi yow ya wara mëna wax ak ñom convaincre len ba ko xamantene dem na dina delu ci wat Hadi. man awma problème communication daf fekk ni kii daf fi doon nekk di woote di woote ma wax moom loolu doy ko de muy insisté di insisté tey nag mu ñëw fi may wax moom par moment mu jékki saa jékkiti baatam loolu la de loolu mooy sa justification constaté naa que ni. yow clinique bi dafa diis trop ci yow. Hmm. yow kese mënoo ko gérer. donc ay Aïssatou wax na dëgg bi mu ñëwee ne dafay jàppale. d'ailleurs sax xam naa ne dama koy woo pour mu ñëw commencé. mais Aïssatou Sarr moom ban compétence la am maanaam day ñëw liggéey ci clinique bi ak moom lu mu xam ne lu jëm ci mbirum clinique. <laughs> mais yi comme yow rek Aïssatou mun na taxaw ci accueil bi. mën na accueillir nit ñi gentiment nag wax ak ñoom poliment bu dee communication rek mën na ko ba mu mat sëkk mën na wuy téléphone fixer ay rendez-vous fexe ba ku ñëw waxtaan ak yow dalal la ci jàmm. baax na man maa ngi dem sama heure boobu loolu nag loolu moom ci yow la ci yow la de. yow yaa njiit bi li nga def noonu la say élément di def ci yow la yow seetaan sa groupe bàyyi sa groupe ba groupe bi tasaaro ñi nekk ci lii ñi nekk ci la loolu yow de du kenn nag. Nabou groupe bi maa ko diriger dama ko war mais yow xam ngeen yow xam nga groupe bi ñu yor groupe bi xam nga ni muy demee saa su ne moo tax mais bii moom cette fois ci moom. dina ci jël samay matuwaay teg ay règlement intérieur yu tok yo xamanteni ñepp dañ koy appliquer kenn par kenn na len wo ñom ñepp waxtaan ak ñom mais limu bëgg ci groupe bi mom cette fois ci su ñëwaaté lool day am mom lende dina la ko xamal xawma da ngay woor yi ñoo par kenn kenn xawma loy def. na nga wo sa ñaari ciri géej yooyu sa ñaari ci pature yooyu nga xamantene ne déranger rek lañuy def dañuy yolé rek ñom loolu lañ nekké ci dëkk bi xam nga ko dada ak këls na nga ñëkk ci ñaar ñooñu waaw kay boo paree nag nga doog a woo ñeneen ñooñu moom xam naa ne moom ñaar ñooñu moom lu jiñ jàkk ñooñu jàkk baax na ñu ngi non dama leen di gérer ndax xam naa ne ma leen gérer li ma bëgg sama groupe du ma ko am non cette fois ci du yomb na bu këls ak dara cette fois du yomb lu leer laa lay wax dañuy mën a correct répété buñ ko mënul xoolal maa ngi ñoom luñ luñ luñ ci luñ ci kii rek ma dem ci ñoom bon baax na man moom dama demoon kër ñoom Fanta rek ma ne naa fi jaar ok Fanta waaw nga dëgg Fanta ndeysaan mhm. sama xarit la da dem nii waaw ah mais cuub bi naaj na de. waaw gis nga njool yow yaa gën a xam. ah dañuy xaw a kii rek ndax ah, koor gi. macha allah mooy loolu. macha allah yaa ba pare. waaw ah, mais bu la wax dara yow. ok rafet na waaw. su ma kii yore naa la woo téléphone dégg nga kon daal ñu ngi ci jàmm daal. waaw ñu ngi ci jàmm Imaam ci rek Ñi ngi sant Ñepp nga len di nuyu. asalaamaaleykum coono yaay ma ngi ñëw dem fi ne may tonton Demba sek. mu mu raay bagage waji waa ji ma boole waa ji dafa war a delluwaat Louga moo tax ma bëgg a récupérer bagage mais dama dama réunion nag réunion bi sax gën gëna gëna la pour suma guddé wé papa légui ni waaw dama tan <coughs> Bismillah. allo salaamaaleykum imaam Ndiaye. kooku kan man la Khady Sarr. Khady Sarr waaw man la imaam. maa ngi ci jàmm kay Ndiaye waaw maa ngi sant yàlla bu wér jaaraf Ndiaye ah lii laa la bëggoon wax tey ci suba dama jokkoog Tafa Sarr. waaw mu ne ma nañ sant yàlla bu baax te xam ne mbir yi jàll na ci jàmm ak salaam. ah alhamdulilah rabbil alamin allahu akbar alhamdulilah rabbil alamin waaw allahu akbar sant yàlla rek alhamdulilah rabbil alamin xarit Sarr day mooy woote. Ah. nee na daal mbir mi daal réussir na. waaw yàlla rek a mat na yàlla def na ci jàmm def na ci xéewal mucc na ci jàmm. mooy li ma la doon wax rek mënoy def lu baax di am leneen lu baax rek ngay mën a am lu baax loolu mu ci yéene woon nag. bay def te yàlla tax ci la ko yàlla jàppale ba dimbali ba macha yàlla defal na ko ci xéewal ba defal ko ci lu kawe njortam alhamdulilah rabbil alamin waaw jaari naa def ça yaa ngi ah, si si liggéey nañ sax de ah naka ni nekk bu rek waa ça va mais man sax euh, mbokk yi moo fi andi ani ma maama Diaw mi ngi fi. maama Diaw nag daa génnoon waaye soriwul de. Ah, léegi xaar waaw. ok merci beaucoup. yow Ya rek laa dese te yow rek laa am dama commissaire li nga wax yëpp dëgg la gis nga waa ji boo ko jàppee jàpp nga ndiba boo ko bàyyee bàyyi nga ndiba mel na ni kamu. téléphone moom tuh? Aysatu betul. pet na foo juga ni kër ga laa jógee waa Dikoon moom ci moom dara mbaa moom ci jàmm. Dikoon kay saa yi alhamdulilah. sànq maa ngi déggante Tafa mu ne ma yeewu na. yeewu na yeewu na kay. ah alhamdulilah. alhamdulilah rabbil alamin loolu kay nouvelle bu neex la. xam naa ma jama moom bu ko déggee dina kontaan lool tey. waaye avant ma jama moom. ay soto danga may jox numéro Dikoon bu Maroc bi comme ça ma. وكساتك دبل ما فيني مرة thank you ceya man jël naa risque bu rëy pour rassurer suñu famille ci wér gu yaramu dikoon waaye maa ngi lay tuub di la jéggalu talay ñaan di dikoon jug ci jàmm ak sala ñépp wér ñépp nekk ci li ñu nekkoon sonu nañu torop maa ngi lay ñaan nga fexe ñu nekk une vraie famille dund dund bu neex

sant yàlla rek bu baax a alhamdulilah yàlla baax na. benn noonu la gis. li ma gën a metti nag ci groupe bi mooy ku nekk ngi def sa business business business business. te yéen business bi ngeen def moo gën a salte ay rien ngeen di jaay yéen ñii di seet ñii di dugg ci lu ne booy ay artiste ngeen ay danseur ngeen kër xanaa xamoo aar bi day fay billahi bu demee ba ci kanam di ngeen gis li ma leen xam ne aar bi day fay moo tax war leen ko fooyee la moo tax mun leen gëm seen bopp toog gère suñu aar bi hmm? li ma ci gën a metti nag mooy yéen ñaar ñi bëgg teewaleen si kël boo tasante ak moom fii léegi bu la jàppalee dadaa nga dadaa boo doon boo tasante woon ak dadaa fii léegi bu jàppalee kël noonu man dugg naa ci programme ku nekk yor micro di wax sa morom naka su dul noonu pour lan këls looy dee looy ko fekk fii mu naan man bugguma la dadaa ki luñ koy yow la joo defarat de ki sama yaay faal la dada sama dada la ki ma ko bëggal sama bu pire lima gëna neex ci mom mo dafa gëm bopam té man Kër Zima dama bëgg di and xalé bu jigen bu fresh bu melni mom avec sa nga ñëw di. wala nga day réfléchir waaye. ko bëgg sama bop sama Kër Zima sama kali du ni néna la xalé bu ne bëreet da yaay ci mom makkaan la du ko këlkalaaloog benn xale ko bëgg wala ngay laaj sama magu bop ji. <laughs> déggoli séeréer naan fategana tani bugo sebini xeteni tani bugo jega a jega nan ko cobiri nan ko cabare nan ko cobiri noon la demee maag moom bugo waxu clinique fi andi woon mm-hmm. Aïssatou Sarr ak Khady ñëw nañ ñëw nañ clinique ba fekk ma fa ñu ne ma dañoo bëgg a liggéey ci foofu teman main def sama liggéey nu mu waree maa ngi koy def normalement expliqué naa leen ko mais ñoom dañ ma xamal ni ma seen lu baay la te man ñoom fi ñu jëlee wax ji ak man sax du benn su ma doon yàq yàq ko bu yàgg te nag maa ngi def sama liggéey nu mu man ma jama moo fi andi woon léegi nekk fi ma ne xaar ma wax ko ne yow di nga ci am solution. jaar yi dégg naa la bu baax te it wax nga fi nga war a waxee ma la ci remercier bu baax waaye li nga wax nii ma jama moo gën a yeyoo régler problème bi ndax mooy suñu kilifa ñun ñëpp mooy suñu yaay ndax liggéey moom amul kii ñoo bokk ndey ak baay amul ki sama papa ku ci nekk place bi nga yayoo rek foofu ngay toog Aysatu Saar kay laa xamul ban fit la am ba ñëw clinique ba naan dafa fa bëgg a liggéey xanaa Tafa Saar yéegu ka yaakaaruma ni yëg na ko de sànq sax yaa ngi koy laaj numéro Dikoon man aw ma numéro Dikoon ne mais yor naa numéro Tafa dama la koy jox moom boo ko woowee dina la paas Dikoon. waaw baax jox mako suko defé suma waxtane ak dikon ba paré man dina mëna wax ak tafasar ñu mëna lu xew yow bi ngay wax ak man ci téléphone bi perturbé ah. xadi biran dafa évader prison. biran mo dafa évader damay ñëw ci yoon bi léegi lañ ma woo dama biraam ci na waaw instant bi sama fit bi moo dem waa mais lan la comment yow loolu nan la mën nekk xaa dañ ko jàppale dan laa ci xam man foofu laa jógee sànq moom laa demoon seeti

te dañ ko falsifié te maay papaam. ñaata nga ma jox. bul lijjanti somme bi defal li ma la wax. ok imaam day waaj a dem jàkka ja mais mu xam ne mu ci biir nelaw si toutefois imaam dem moo lëkkee si ci kër gi première chambre deuxième troisième mu ngi foofu di nelaw. waaye yow la daa bëgg ñoo def. ah waxtu bi waaye li ma soog mën naa julli. dadaa nag xam nga ni lii julliwul. wallaay lu yu moom daa baax nag si jigéen col gu dafa rafet. moom mbete booy jinne kon évasion nii la yombee si si Sénégal. doy na waat doy na torop torop torop torop connaissant bien Birane nag yow xam nga biraan bu baax te xam naa ko. Hmm. li mu capable ak li mu capable yépp xam nga ko. te woyu bu nek en cavale nak mom dafa jara moytu bu bax wa yow biran nga xamné dafa nek une personne complexe bo xamné ken mënu ko cerner lo yaakaar ni defu ko rek def na pur dem tok kalu xawma kan de mais yow mom lan la yow yaa war a gën a mën a def attention bu baax parce que Birane mu nekk ci mbedd bi di wëndeelu dara wóoru ci ak yow li ma lay conseil xam nga mooy lan avant loolu sax mairie yëg nañ ko. yokk kese laa ko wax parce que yow laa ci mën a waxtaanal wax ma ko li ma lay xam nga lan la mooy nga dem kër ga nga toog fa te boo yeggee na ko wax sama yaay wax maam ma maama parce qu'il faut que nous alerter nous, les douleurs nous n'abus. Mon gonavour. tunajia badugu kasofa oh, oh, oh. piche mum boppam kenn xamul yabaram dugu naa ci yow badugu kasofa oh, oh, piche mum boppam